mu koy yokk courage euh, di ko euh, yokk jom waaye di ko gën a motiver teg ci nag di ko gën a jox confiance en soi ndax yaakaar naa jigéen euh, bu nekkee boroom këram da koy dëkkal rek di ko kañ di ko wax ay njàmbaarteem te loolu day tax nit ki gën a am confiance ci boppam waaye tey loole amu ko te ku gis xalil am ni faa manqué na ko trop ñu jàll ci na Soukeyna Mère Soukeyna nag moom na ni d'accordatul ak faa ni muy doxalee ndax ku ne xam na ni buñ la tooñee nga fayu mën nañ koo comprendre waaye nag boo continuer loolu mën na laa rek ci xol wala mu yóbbu la ci nit ku bon nit ku soxor alors que moom mi nga xam ni moo di faa melul woon noonu kon tey bu toppee euh, ki nga xam ni moo di Layla bëgg a nekk nit ku soxor wala bëgg a nekk nit ku bon loolu yaakaar naa jaru ko fayuwante bi bu yàggee mën na indi leneen kon moom mi nga xam ni moo di Mère Soukeyna moom bu sañoon lépp nag day daal dakk waaye euh, li mu comprendre rek mooy génération bu bees bi ñoom ay fayantoo da leen a neex te it nag kenn du bëgg a mujjee lu bon lépp koo xam ni sa na la lu da nga koy a fay doo a yi léegi ndax xale yi duñu muñ lu toll ni tarafatal ay nit ñu jàll ci Nabou Gueye Nabou nag moom gis nañu ni moom saa bu génnee rek yaakaar naa ni air bu comique lay génnee ba tax nit ñi dañuy ree ndax ñëw na kër ki nga xam ne moo di faa seet si ko waaye wax jum fa wax yaakaar naa ni lépp mënoon lu bëri mënoon naa ñàkk ndax boo ñëwee pour faa dellu si pour xamal ko ni ko rek Père Ndiouga soxla na ko yaakaar naa mënoon na ko waxee ci beneen ton boo xam ne ñëppay toog daal di koy déglu waaye nag ñàkk euh, euh, fulla ak ni nga xam ne noonu lay waxee tax na ba na ni am na lu gën a a defee que di toog di déglu Nabou Guèye loolu nag yaakaar naa ci moom a xam ni mag nga te it nag nga respectable pour euh, ñu jàll si joojo joojo nag moom yaakaar naa ni amoon na occasion pour récupérer jëkkëram waaye yàq na lépp te dara waralu ko nag lu dul bëgg a garder formam bëgg a garder nu mu mel ndax jàpp na ni bu ëmbee wasin yaramam day yàqu mu mel ni kon jigéen ñi bokkuñu si euh, cas boobu ndax jigéen ju bari bu ñu sañoon bu ñu sëyee li si topp mooy am doom waaye yow boo demee ba sëy di naan am doom parce que bëgguma rek ñàkk sama forme oh. sama silhouette ni mu mel noonu laa ko bëgg a euh, maintenir yaakaar naa jigéen boobu xamuñ fu ñu ko mën a euh, te moom joojo tey loolu jaral na ko daal di ñàkk euh, occasion bi nga xam ni moo waroon a tax mu récupérer jëkkëram ndax dafa préféré daal di avorter ñu jàll ci faa fa ñëw seet si Leila juste pour daal di koy kokkali mu mel ni kon moom faa nit ñi di wax commencé naa nekk dëgg même bu fekkee ni que victime la woon bu njëkk ba waaye léegi moo ngi commencé nag di soof waaye moo ngi commencé itam di ëppal ndax bi mu na cee yem waaye nag mu ñëw ba ci moom topp ko daal di jàkkaarloog moom war na xam ne loolu bu ko defee xeex bi du jeex ndax Leyla itam du bàyyi ndax du nangoo rek daal di jël ndaare ba tax na kon moom euh, Leyla euh, bàyyiwul benn yoon ndax ci biir euh, fi mu nekk mi ngi rek di dile pour nag daal di daal di rek métital fa ci biti ñu jàll ci Nabou Gueye Nabou moom depuis bi mu xamee ni Ousseynou doomu député la ba tey mayul ki nga xam ni moo di Khady Thiam jàmm ndax saa su ne da koy ci mariage bi ngir nag mu bañ a dem naga nugu ngir nag mu daal sëy ak doomu député bi mel ni kon moom Nabou Guèye nitu intérêt dëgg mooy moom waaye mel na ni Khady Khady Thiam moom pareegul pour sëy ndax ku ko gis ak tekk tekkaara la ak li nga xam ni ci la jaar di violal bi nga xam ni moom la ko lay pen bëggoon def tax na instant yi mu perturbé ñu jàll ci Cédric Cédric nag moom mi ngi essayé nag di raisonner faa ndax faa jamono ji commencé na rek tànk yoo xam ni yaakaar naa euh, bu ci euh, jugul mooy raw ki nga xam ni moo di Leyla la ñu gis ci moom goo xam ni bu ko bàyyiwul dina dem ba raw Leyla dina dem ba def loo xam ni euh, mën na moom Sely mu xam loolu di ko xelal waaye faa nanguwu koo dëglu te it nanguwu koo gëm mu mel ni faa jikko sénégalaise rek la fa wane ndax sénégalaise mooy koo xam ni bëgg mooy kuy ànd moom di ko jay waaye ku ànd ak moom di ko wax dëgg yow da lay jël jàppee la noonu alors kooku moom moo la bëgg ndax nit ku la bàyyi ci say conneries ngay dem euh, freiné wu la kooku ndax conneries yooyu boo ko bàyyiwul mën na laa dugal ci musiba alors que ki nga xam ni dafa ñëw di la wax dëgg ngir nga mun a tegg sa tànk teg ko ci yoon bu baax bi kooku moom mooy ki la bëgg ñu jàll si beneen séquence ñu gis ni Khady li mu doon doon bañ yëpp am na te mooy bu demee police daal di koy xas daal di yàq lépp ci euh, kawam mu mel ni xale jigéen yu bari ñu ngi subir viol wala ay yu ni mel waaye du ñu bëgg a dem police ndax boo demee yow yaa ko def wala yaa ko tey mu muy loo xam ne lu métti la ci xool ndax góomu xool ñaari yoon lay doon ndax ñu violé la wala comme Khady Thiam ñu lay jéem a violé nga ñëw wax ko waa police gëmuñu ko loolu moom dafa nekk loo xam ne def lu dul gën laa naxaral ba tax na Khady Thiam lépp ci kaw euh, Tidiane la ko daal di moom it yaakaar naa nekkul koo xam ni ku am kóllëre la wala koo xam ni nit ku baax la ndax yaakaar naa nit bu la defalee lu baax euh, bu la jiwee teraanga war nga ko koo delloo ndax ku ne xam na ne Tidiane moo ko sauvé ndax bu dul woon Tidiane làmbaay ñaaw waaye itam Tidiane bu ko indee police c'était juste itam pour rek euh, defal ko waaye pour mu am gain de cause ci kaw ki nga xam ni moo di laypen ndax laypen da koo tooñ ñu jàll ci Soukeyna mère Soukeyna nag moom gis nañu na ni diggante fa ak Khalil waruñu koo caaxaanee ndax diggante fa ak ki nga xam Khalil li ci am yëpp nekk na loo xam ni ay malentendu kese la loolu nag tax na mu bëgg rek daal di euh, ñëw conseiller Khalil ngir mu daal di reconquérir Fa balaa moo dellu France mu mel ni kon moom mi nga xam ne moo di maire Soukeyna moom xam na bu baax a baax léegi que ni euh, Fa Khalil moo gën ci moom ndax bi ko Khalil bàyyee ba tey euh, mel na ni dafa perdre ay repère am ndax yi mu ngi def yoo xam ni lépp daawu ko def ndax xol boo xam ni bëggoo amoo nekkoo di dund sa mbëggeel xol boobu peut-être soxor ak iñaan a xam ne mi ngi bëgg nit amour boobu mooy fees ci xolam ba du tal iñaan wala di soxor kenn ñu jàll ci Nabou Gueye Nabou Gueye nag moom gis yoo xam ni na mu papa njuga lépp nag ngir sëy bi am waaye nag yaakaar naa déception bu mu am nekk na bu rëy boo xam ni ndax Khady dafa choisir daal di dem village kër di sëy ak Ousseynou loolu nag li muy wane rek mooy Khady euh, nobul Ousseynou ba tax na Ousseynou moom it euh, xam liñ ko waxul mu daal di jug dem mu mel ni kon moom Khady Thiam tey nekk na koo xam ni dafa réer te it nag lépp li ko def li ko waral rek mooy incident bi am ci digganteem ak Laye pen mu mel ni loolu du ko teel a euh, bàyyi du teel a génn ci boppam ndax même bu fekkee violé wuñ ko waaye le fait nga xam ni dañ la doon bëgg a rek euh, nekk na loo xam ni yaakaar naa neexul benn yoon yéen ñu jàll ci Sadikh Sadikh nag moom dafa bëgg rek def yëfu jullit wane ni jullit la ndax yaakaar naa jigéen bu ngeen tasee euh, itam dafa am idda boo xam ni trois mois la te boobu noonu kon war nga koo respecté te ba tey yaa war sa ki nga xam ne moo di sa jabar di ko dundal kon yaakaar naa idda dafa nekk loo xam ni sénégalais dañ koy fowee waaye lu ñu war a respecté la nag li tax ñu ko war koo respecté mooy bu fekkee problème am na nit boobu bu fekkee ni a ngi des ci kër gi ba tey mën ngeen dem ba euh, di def li ko diineem ni moo di joojo mel na ni pare na ci mel na euh, euh, ndax fulla ak fayda la ñu gis si moom ñu jeexal ak bi ñu gis ni Layla mu ngi préparé benn coup contre Fa ci noonu nag la ñu kidnappé waaye nag ñoo wax à cent pour cent ni ki nga xam ni mooy nitu euh, Layla ki moom moo ko kidnappé parce que ku ne xam na ni Khalil tamit waxoon na na def lépp lu mu mën ngir daal di rek euh, téye faa ba du dem France te guddi googu la faa waroon dem France kon nag mën na nekk ki nga xam ni moom la Layla engagé waaye mën na nekk itam euh, ki nga xam ni moo di Khalil ngir kidnappé faa ngir bu mu dem France ak lu mu ci mënti nekk leen topp si yeneen épisodes yi ngir xam fu wàññi leen di mujjee ki gëtam waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee ba si cloche notification bi ngeen di jot suñu yi à temps ngeen jëf